dikkati na Bassirou Bougane ànd bi mën na lu ne deux minutes pour lire l'essentiel naan maan en tout cas ñaar ñi seenug lëkkaloo dey moom jël nguur mënu cee ñàkk tukkee turbine yéen a kaay naan maan Pastef fa nga tàllal loxo ba gëm sa bopp 24 a kaay naan kon Diomaye président gannaaw ñeen fukk ak juróom ñaari parti yu mu dajale daal dinay dem seeti Bougane Gueye Dany l'indépendant naan kon ne ko jabb loxo nekkoon nañu ànd daal di doxal turbine yéen a kaay naan kon jëm ca moom Pastef ñaabar ñaabari daal di bureau talal ko loxo ne ko kaay ñu ànd songandoo candidature bu Bassirou Diomaye fay bii daal di koy xeexandoo jëli fi ñi fi ne moom Bougane Gueye Dany ni sam di gii dina wax daal di le nag moom Gueye fan lay féetee waaye tam kan lay àndal ñaabar ñaabar rek moom jëm ci présidentielle bi moom jiital gëm sa bopp war a defub déclaration ni ki gaawu gii xamle candidat ban lay daal di jàppale ab assemblée générale ñu daal di koy woolu képp kuy délégué départemental ak communal ñu woola ca ngir ñu daal di dajaloo ci seen biir def waxtaanu xool bés bu sottee kan la ñuy àndal ci yile élection présidentielle vox populi naan maan en tout yaa ngay manœuvrer ña waxtaan ñoom candidat yi dem ak rëkkale yi moom Bassirou Diomaye Faye ngay accélérer cadence ralliement yi Aly Ngouille amu yees Idrissa Seck daal di ànd ak ñetti coalition tribune naan kon présidentielle bii mës ta am mi critique yéen kaay naan kon bile présidentielle mbaadu nag moom président Macky Sall bëggul jël conseil constitutionnel def a dal bi moom président Macky Sall moo ko rëy na diis na mer nan ba futtu ñoom sept sages yi malaise daal di am ca bopp nguur ga ca njombaxtal la assemblée nationale tàmbalee rii tàmbale xel ya tàmbale jaxasoo ba nga xam ne ñoom magistrat yi génn nan daal di wax moom président Macky Sall nag nekk ci tànkuk daal di seeyal conseil constitutionnel ngir ku ne dégg tenkiw ci réew mi Sud Quotidien naan man tey daal àllar bay dëgg la ci assemblée nationale ñu war fa taxawal benn commission d' enquête parlementaire boo xam ne nag moo war a dal ci kaw conseil constitutionnel docteur ne moom assemblée nationale ma ne la amul genn sañ-sañ wala ak doole goo xam ne war na ubbi enquête jëmale ko ci conseil constitutionnel le quotidien le quotidien daal dina ko procédure bi ci boppam moo jara laajte ndax nag dëgg la woote nañu a plénière ni ki tey waaye règlement intérieur bu assemblée nationale dafa ne plainte bi nga xam ne juge Ndiaye def na ko dafa war a mën a seeyal gépp ak taxawu commission d' enquête parlementaire las yéen kaay nan kon taxawal foofu le quotidien riigal sa baaraam ma xamal la ci boppam dafa daal di dëddu boobee te plainte bi kat yenn ci ay avocat man Sonko ñoo koy défendre waaye procureur ma ne la acam la ca def laas ne ko lii moo ca am tey jii nag député yu APR ak député yu parti démocratique sénégalais daañu lëkkaloo ngir daal di wote motion bi te buñ ca yeggee juge conseil constitutionnel yi ci boppam boo moytul daañu lank dem wuy ji yéen kaay bi naan maan fi mu ne crise institutionnelle moo am ci réew mi lanket ko dajee mel ni ku naan kon waaye bu nee ci mbir mi tey jii ma la APR ci boppam boo moytul am ci nag député nga xam ne dañoo ànd ak Amadou Ba ak ña nga xam ne dañoo contre candidature am bii mbaa duñu jàppante ci assemblée nationale te ñoom ñëpp nag war a bokk ci APR moom l'enquête daal di xam le ni fi mu ne tey jii taxawaayu député yu Pastef fii la nuy xaar yéen kaay bi naan man waaye keroog ca bés bu njëkk ba ca commission des ba ñoom ñëpp daal di wote benn ci député dong moo wote contre bés bi le jour naan kon député yi yeewi yi mani la ñi ngi bëgg bàyyi asporox ndoll soo xam ne bés bu ñu gàntalulee élection yi waa parti démocratique sénégalais daanu ñaabar ñaabari dem jàpp jàppale leen yéen kaay bi naan maan waaye bu leen fàtte ay feemu parti démocratique sénégalais 2019 yàggul ak protocole bu Conakry protocole boobee weñoon loxol maître Abdoulaye Wade 2019 ba PDS bokkul woon ci élection présidentielle yi ña nga ci bañ bokk ci ay élection ba tey jii nii ci commission d'enquête commission d'enquête boo xam ne mën na nërmeel ay élection présidentielle moo tax bés bi naan attention parti démocratique sénégalais tribune yéen a kaay naan kon commission d'enquête parlementaire am taxawam tey jii lu ne ma ne la lu ne mën naa am ci assemblée nationale ndax nag moom Amadou Ba bakkanam la gar ci déggoo gi nga xam ne war na am diggante parti démocratique sénégalais ak Benno Bokk Yaakaar moom APR daal di wan parti démocratique sénégalais ni mi ngi ci gannaawam yeeweeg wallu daal di koy woteel wii ca commission des lois Walf Quotidien nan kon attention de APR jàppale na Karim mel ni ku jël bal daal di koy dóor cib tànkam te tey jii boo moy moytuwul mani la revirement mën na caa am ñoom APR ña doon jàppale Karim boo moytuwul mani la tey jii mën nañ deltu ginnaaw ci loolu l'observateur naan kon parti démocratique sénégalais ak sept sages yi mëstanee neex ca jamonoy maître Babacar Seye ba tey jii ñu leen di jiiñ ger ca jamonoy maître Abdoulaye Wade relation mag juge Cheikh Tidiane Koulibaly réew mi quotidien naan kon en tout cas waa Sénat ña ngay seetal waa conseil constitutionnel naan mbir yi lépp ci yoon lañ ko teg l'info yéene kaay naan kon présidentiel bi doy na waa taq na suuf xajam na 2024 la ñu am présidentiel boo xam ne ñaar fukki candidat ca bokk record njiital opposition ba du ca bokk majorité ba tàmbalee seen biir juboowuñu opposition ba tàmbalee tàqalikoo lii lépp ne ni présidentielle bi bu amee yàlla nguur gi am candidat boo xam ne ma ni la siisam a ngi bii ju di yëngu ña ko ko war a jàppale daal di daw bàyyeekook siisam te tey jii mënta wax benn bilan bu dul bu président Macky Sall président Macky Sall boo xam ne ci waxtu woo xam ne askan wi dañ koy xaar ngir mu wane ni ab njiit la gu ñu war a wóolu laaj wa mooy ndax askan wi ma ne la wóolooti nañ leen opposition boo xam ne tey 2024 la leen mën a boole ma la moo leen di tàqale booloo daal di jàll tàqalikoo faatu fa yallaaxu te aar sax mbedd te tàqalikoo googee candidat bi ne ci nguur gi moo cee jëli avantage mu dese nag beneen troisième pôle boo xam ne daanaka électeur sénégalais yi xalaatuñu woteel leen coow li mooy diggante Benno Bokk Yaakaar ba nga xam ne candidat ba ñoom ci boppam amuñu kóolute ci moom ak opposition boo xam ne ña ngay tàmbalee xaajante tey jii kan mooy am chance su dëkk say loxo nguur gi wadd ca tribune yéen kaay naan kon en tout waxtu woowu moom Sénégal daal dinañ koy boole ci réew yoo xam ne guerre daf ca daal di gën a bari moom Sénégal daal di taxaw ci zone rouge bi téeméer bañ ko war a noteel Sénégal am ca ñeen fukk ak ñett moom président Macky Sall ñu daal di koy woo mu daal di yër la nga xam ni tukkee na ca cour des comptes waaye tam l'enquête yooyee la mu daal di joxe ngir mën ca orienté ay enquête war a mën a jot rapport yi xool ko saytu ko daan ya war ñu daal di koy teg le témoin yéen kaay naan kon en tout cas zone rouge ba ñu nekkoon Sénégal masu sa jóg ci wàllu ger turbine yéen kaay naan maan waxtu waw moom Babacar Mbeng dalal na ministre Omar sa Thiès daal koy mobiliser waa grand man Malick Mariko dib leader njiital mouvement taxawu dëgër jébbal soxna yab financement fanweeri millions yoo xam ne dee su ko remboursé loo xam ne ndaw yi nag mën nañ ca jaaree daal di defar seenuk ëllëg mooy tundiku gaal yi soxna yi ñu mën leen cee tàggat encadré leen ba nu mën a am lees jàppal seen bopp jàpp ci Sénégal nag tribune yéene kaay naan man du yomb démboo démb genn ak bati mang daal di nay daanu lu toll ci juróom-ñaar ci bakkan daal di cay rot le soleil yéene kaay naan kon juróom-ñaari bakkan rot nañ nit ak ñaar daal di cay am ba nga xam ne daal